arbitre kii daanuwul arbitre loo wax jël amagulam dina ko yëkkati wala bañ na de yëkkati ee eh, daan na la jël baa jël ba mu la daana rëy toonee de toonee de ey tooni a baax na waxoon na ma démb ngeen li daa réer yàgg maar toonee ngi gis nga jël bi mu daan booy ku jara bàyyi xel la bàyyi ko xel mu ngi koy yëkkati ji mu ngi koy yëkkati ji booy ba xale bi muy bëreel moom aada booy bawol ngoy la dëkk ngoy Aliou Sylla waa yàgg maar Fallou Ndiaye am na jarbaat yu baax waaye Babou Ngom am na doom yu baax de yaa gis nga xale yi sol ci joor ay ngomeen lañ a ah, yàgg maar war nañoo dem Gaye ñu nga ca biir de quart de finale lour bëre aada jël na ko aada jël na ko aada da koy yëkkati eh daan na ko bokkul du benn doole ji bokkul aada dem na demi-finale aada dem na demi-finale aada dem libidoor bu Ngunjaan ak libidoor bu Kayar quart de finale lour terrain gaal gi ak Jax ay boy génnal géew bi Libidor jëli na ko mu bañ cey yàgg maar ñaari Libidor ñaari Libidor xoolal kii dañ koo daan dañ koo daan muy jooy booy jógal sangu jógal rek sangu ji garaawul nii la xool ko yàgg ne ne ko jóg sanguji ji ñaari Libidor cey jëlante nañu wala jëlante nañu Libidor tànk yi la bëgg a jël Libidor bañ Libidor ak Libidor Libidor booy demal noppil te dem waa lii lu ko jar daw na jël ko hey mu bañ mu weele fàq na ko Libidor bu Ngunjaan Libidor bu Kayaar muy nuyu waa Ngunjaan nuyu waa Kayaar Libidor bu Ngunjaan bu Kayaar daw na jël ko oh daw na jël ko oh daan na ko Libidor bu Kayaar daan na bu Ngunjaan tànk ba la jël maar dawal ko sànni ko mu jaaxaan jógal sangu dem na demi final moom Libidor bu Kayar démb moo final woon arène nationale tey moo demaat fii demi final yàgg maar wala Tony à droite demi final léger sa mbër Ah, tay dina am dara de ah. tay kay moom eh Tony jàppante na ak ba Tony kooku ngay bëreel waaye Tony di dem éliminé général Malick lu doy waar cey loolu de Reug ko moom ndeysaan waaw loolu Reug Reug ko moom eh jël nañ mu ndambe mu ndambe mbaa di dem final war nañu mburum mburoog ndambe war nañ ko ndombo ay waay mburoog ndambe kii la bëgg def da la bëgg a xañ xaalis mburoog ndambe ca suuf mburoog ndambe nañ la daan dinañ la daan mburu bañ na de mburoog ndambe bañ na de yàgg maar mburoog ndambe mbaa dina génn ci lii mburoog ndambe dina daanu de wala bañ na ne du daanu de mburoog ndambe de bañ na daanu na mburoog ndambe daanu na xool ko mu tooge jógal jël sa weccet te ñibbi daan nañ ko mbër mu saf xorom la mu roog ndambe day animé rek daw nañ jël ko tooni bañ cey loolu jàppante waat nañu waa reefan lay wey ak jiga mooy nuyu kuy doomu reefan waa reefan daw na jël ko oh Tony war na ko dombo Tony ay Tony Tony dina dem final wala Tony da koy daan xale ba bañ na ñu ngay jeex suuf sa maar Tony du ko ba de war ndombo Tony du ko ba de daan na ko daan na ko daan na ko épaule ba la dóor dem na final léger cey loolu Tony dem na final léger ew demi final lour ngel jon fis na bat leen sikki demi final lour bëre leen waay daw ko mu bañ mu sol ko wañ na ko mu bañ ñaari demi-finale yaa ngi ci biir dina ko daan dina ko daan Libidor jàpp na ko fu dëgër kii bëre ak Ada Bawal Toubacouta ñaari njool ñaari njool lañu boo xoolee waaye Libidor fi mu jàpp kii mbaa dina rëcc ma yàgg maar lii boo xoolee loxo góos bi mu ngi ca geenu ngemb la benn bi nekk ca dënnu ngemb la ah wóorul de booba pare bopp bi féete suuf bu rombee foofu mën na laa yëkkati daw na jëli tànk ba mbaa du ko xar xale ba dër na bañ bañal de fi mu jàpp daa baax de da koo bëgg a yëkkati ca suuf mu bañ xale bi bañ na de eh jël nañu eh daan nañu Toubacouta Ada Boy Baol daan na Toubacouta da koo roñ roñ Ada Boy Baol en final roñ da koo roñ yàgg maar daw rek buub la da ko buub buub la ko def. démb xam nga Franc ko moom Ada Boy Bawal mu naqari ko lool waaye gis nga tey finaalu na eh fils de bat leen sikki lii ngay def ak Libidor te moo defal lu wóor defal lu wóor nañuy def yaa dégg loolu kiki eh, kiki waaw waaw kiki kiki eewa eh, kiki kiki waaw waaw eh, defe naa waaye ñaar ñi nañu bëre waay leese eh fu mu jëm moom takk na ko dina ko sukkar bi ay arbitre daan nañu ko Libidor finalu na kon Libidor dem na final nee na daan na ko trois fois nee ko danga bëri wax ay yàgg maar Libidor finalooti na tey démb yaa ko filmé mu finalu ndeysaan waaye final les be des léegi. waaw ndondol njeejeng waaw. dondol njaman. dondol njeejeng njeejeng. ngeme. waaw. tey yaa finalu lese. waaw maa finalu lese bi kay. nga Tony. kan Tony. non dama koy seetaan nii rek mais xaw ma ah. ci kanam. waaw waaw ci kanam. Tony. tey yaa finalu de. maa lay siyaare de. maa ngi lay bëgg de. yaa dem final de. xanaa ñaan yàlla jël ko rek incha waaw ñaan yàlla jël ko baax pour jël ah? pare nga pour waaw loolu laa bëgg fët fët maa ngi sant waa Kër Mbir cey waa final léger Vieux Manga Ndiaye ak Tony Vieux Manga Ndiaye ak Tony final léger Vieux Manga Ndiaye ak Tony Tony ak Vieux Manga Ndiaye hey Vieux looy def nii yàgg maar Vieux Manga Ndiaye da ko doon nax waaw yaag du ñu wàcc ba fële wala wala fii baax na ee eh, waay loolu daw na jëli ko loolu neex na de waaw waaw junni junni laa toogal. waaw moo ngi nii junnee ngi nii. junni bor ànd bawol. waaw sama doomu nday de. waaw maa dem final de ñaan yàlla ñu jël ko. ak li bi door. ñu jël ko si kaw li bi door. jël bu rëy. jël bu rëy lan la junni wax. cey loolu. ndeysaan eh Tony jeex na ko Tony jël na ko Tony da koy daan ay Tony Tony da koy daan ay Tony ay Tony yàgg maar yàgg maar xale bi kaay yàgg kaay yàgg xale bi Tony ngi félicitations merci beaucoup merci waay merci beaucoup beaucoup mais lépp nga leesa lépp waa Kër Mbir la waa Kër wallaay fan yii yëpp dañuy créer benn association boo xam pour ànd dooleel Tony Junior rawatina diaspora bi ànd dooleel Tony ñu ngi leen di ziar bu baax di jël nuyoo bi di ko teg si loxo Ousmane Ndour di ko wax ni ko Tony gis na jàppale bi di wax di jël Brésil waa Brésil di ko teg si loxo ñaar yaar Mbagu Diop maa di ziar bu baax grand Gora Ndiaye sëñ Bay Pakala tey damaa woo ni ma Tony li ngay dem demi-finale bari na. li nga dem quart final bëri na mais pour nga di trophée moo ñu gënal quoi beneen poids léger nga di trophée ma nga ni sëñ bay trophée daa jot a gudd rek mais bu jotee poids lourd ak poids am mais tey nag yàlla dogal ñuy sant yàlla bu baax a waaw di ñaanal mbëri si nekkoon tamit si bi ku si ne mënoon nga kaa jël quoi mais lii la yàlla dogal si man la ko dogal tey moo tax maa ngi di ñaaral yàlla bu baax a baax Babacar waa Kër Mbir dañoo sonn si man amalu gën Kër Mbir waa war jaxal sa dëkk ba waa war jaxal kenn gënu da lay Cere Jaara ñëw ñam si ka Cere Jaara Bukar ñëw leen ngeen ñam si Jaara Cere Jaara moo may doole billaay wallaay Cere Jaara moo may doole man boo ma xoolee xam ni dama niin ba tak cere séeréer cere séeréer man lébu laa mais léegi séeréer la billaay Baboucar benn bonne contenance to Libidor Libidor laa jël rek ndeysaan Ada Boy Baol à Libidor à gauche démb nag boo xoolee Libidor mi doomu Parcelles la ko xañ muy Franc mu naqari ko lool tey nag ndax day fayu walla déet ndax aada mi moo Garga Mbossé ñoo bokk écrit ñoom junnee ko andi mooy xale bu mën a bëree waaye Libidor itam ndaanaan la ci li simple gis nga dafa naqaree daan Libidor dafa naqaree daan waaye aada itam boo xoolee léegi yaram waa ngi bëgg a min lit waaw tey nag boo xoolee jël bi mu daan Toubacouta sànq nga xam ne mbër la kon ñi suivre Equivox TV dañu leen di bëggewaat di leen ñaanal jàmm di leen balu àq parce que weeru koor lañ jubat képp koo xam ne yàgg maar juum nañ nga dégg ko moo xam ci wax la wala ci jëf ñoo ngi lay baalu àq ndax ni tamatul waaw te des fois wax daa metti des fois nga juum ci micro bi moo fi woote woon tey ci terrain gaal gi comme ni mu ko yàgg a bi mooy ñetti yoon mu fiy tëgg bi saison bi ubbee ak léegi bu njëkk ba seneral Malika ko yóbbu deuxième bi Zambala troisième tey ku koy jël léegi mu leer daw na jëli tànk ba ci diggante Ada Boy Bawal nekk droite Libidor bu Kayar à gauche Parcelles Kayar final bu ndaw bi leese doomu kër mbir a ko jër muy tuuni mën a bëre lool bëre leen kenn waxu leen ngeen xëppante suuf dañ leen a wax ngeen bëre bëre leen libidoor daw na jël ko moytul loolu moytul muy tibb sa tànk baax na aada moytul libidoor di tibb sa tànk aada booy bawal libidoor aada daw na jëli ko aada aada loolu mbaa wóor na aada loolu wóorut aada dañ lay daan aada doo génn foofu mbaa duñ la aada dañ lay yëkkati wala bañ na de bañ na de bañ na de xale bi moom ni muy joxe boppam lii wóorul lii wóorul aada lii woorul aada lii wóorul fiñ la jàpp wóorul du la gaaw a ba de gis nga lum ko bëgg a def suul dina la war ndombo de waaw waaw war na la ndombo de war aada li nga maye daa bëri a way dalay daan dalay daan de away ah, dalay daan dalay daan de ana daan na ko ay waay yàgg maar kaay yàgg maar kaay ana man ta wax yàgg maar xam nga Ronaldinho Ronaldinho ma ca talonnade yooyu waane wala Messi mais booy booy yow félicitation sax ba pare. waaw merci Babacar merci Gaye. mais li nga bëre yow xam nga ko. ah maa damaa ñëw pour bëre rek xam nga yàgg naa ñëw di wut te xëy na ñoom samay mag lañ te man yaakaar naa damaa war a jël lam ndax damaa mën a bëre comme ñoom ndax damaa tarbiyu lam te wóor na yàlla ñi may daal ñëpp maa dàq a bëre mais billahi aduna xam nga mi ngi doo a jot te lu jot yomb xam nga xëy na lu jot yomb mi ngi soo a jot. mais bi nga jox ak fi mu la yegg waaw damay bëreeg moom dama koy wan damaa mën a bëgg mu yomb quoi parce que lamb yi warul yomb dañuy waaj a woor moo tax foog mu neex. ok. Uh-huh. yow loo wooree ji daa mel am nga ko tey. ah waaw sant naa yàlla bu baax. nga am diwlin. waaw naa am lépp. suukar. lépp <laughs> meew. sant yàlla rek attaaya. lépp sant yàlla. yàlla ñëw rek kan moo la jàngal bëri. man damaa juddu dëkk Cambérène dëkk si géej gi. di xëy xaw ma lul géej dem di géej di bëri ñëw. gis Franc éliminé la mu mel daf laa na bëri nañ mu daan man làmb la xëy na mu ngi may daan daanagu ma ko waaye bis ma ko daanee rek ma xam ne daan naa ko du ma ci wax nag mais xam naa ne bala maa dee su bàyyiwul bëri naa war ci kawam. moom Franc wallaahi asim loolu leer yàgg maar comme ni nga koy waxee wala ni koy waxee tey la woon la 11 avril 2021 Jax moo fi tegoon 3 millions final bi Libidor bu Kayar Ada Boy Bawol bu Parcelles wala bu Cambérène gis nga ni mu ko daane foog mu bëreloo ko daan ko ni ko neexee Tony daan lese bi ki nga xam ne mooy xale ba jóge ndondol parce que xale bi ñu daal final bul fàttali sama dëkk ba la jógee ndondol njeejeng Moussa mu mel ni ki tey buñ fi bu tey passé ci koor gi la ñu jëm looy wax yow bi nga xam ne tamit da ngay dund lit simple mu mel ni kon daal looy wax sénégalais yi taw parce que koor la ñu jëm. waaw Babacar ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi gërëm suñu ñaari waajur ñoo ñoo ngi sant képp bépp xeetu séeréer ñoo ngi lay sant di la gërëm wax dëgg lam ji. neex na trop trop mais ginnaaw na dañuy dem ci mois de ramadan wax dëgg neex yàlla nañ ko waajal xam ne loolu weeru mbégte la weeru yërmande la weeru ngeneel la euh, kon nag nañu góogóorlu balante ak ñëpp balante ak ñu baaloo ñëpp ak dugg ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko alhamdulilahi rabbil alamin o fogole sereer o fogole sereer maxey simna nuun nuun fop gidma nuun to sante'a nuun to yaakaara nuun e to layanuna i ndamo culture sereer ne moƴo ngogorloox te a paax a paax a paax e Njom o sereer jegun gon fat i ngogorloox te ando culture sereer ox kontaan ci yow waaw kontaan naa ci yow ci yàgg maar nag yàgg maar daal man dama koo bëgg yaa bëgg yàgg loolu dafa leer yàgg la gën kontaan naa kon du mën a ñàkk kon gars yi noonu la deme woon Equivox TV la ak Babacar xam ngeen ne moos lamb dangeen ngeen am ni ngeen ko bëgge te it nag du mën ñàkk faw muy neex ndax loolu la yàlla sunu borom bi dogal loolu yàllaa ko def kon ñu ngi santaat yàlla di julli ci sangu-sang yi Nabil Moustapha di ñaanal ñëpp jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm defal ko kilifa diine yi kilifa aada yi autorité yeeg képp kuy doomu aadama yàlla na la yàlla defal jàmm yàgg maar weeru koor la ñu jëm. saxru ramadan weeru koor weeru ngëneel yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim woor ko ci alhamdulilahi rabil alamin yàlla nangul ni sunu ay jaamu di nuyu tam sunu mbokku chrétien yi nga xam ne ñu ngi woon ci seen weeru koor muy door a jeex parce que Sénégal loolu la xam benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar yàlla na jàmm yàgg aada booy bawal félicitation libidoor di courage finaalu na démb faraa xañ ko ma finaalu waat fii tey aada xañ ko aada nag nee na bu dee faraa ngi bëre muy bëre balaa toog dina fayu li ko Franc di def kon nag loolu làmb la duudu ñaana nga nële maa ngi koy bëggee waaye moom après laay ñëw si moom su affaire yi passé yàgg maar ñàkk ànd ak yow ci film da du wóor loolu chaque jour ma di ko wax ndax nag ruq yeeg ruq-ruqaat yaa ko xam waaye Babou Ngom ah yàgg maar maa ngi koy nuyu Babou Ngom daal waa këram ñi macha allah man dama foogoon ne li ma moo mën a tëggee fa la yem am na ay affaire ci ginnaaw ay xale yu yaa ma gën a xam beneen yoon loo bëgg a wax. licence laa bokk waaw damaa dem ci gars yi wóor na la sama sama xoolal ci CNC ñu ne il faut nga andi photocopie d'identité bi d'accord ma ñëw ba fii yaram yi daw quoi sama dal gisoo benn dal laa yor xolo damaa a gars yi ñëw fii di bëri nii ay poids lu poids léger ñii am nañ doole de doole poids a benn de billaahi du benn maa ngi dëkk fii Bambey fu ñu wax nga Aliou Sylla am na combat gisoo mbooloo laa yor mbooloo voilà gars yi laay rey billahi oh. ndànk oh. nga am licence. comment laa bëgg comment laa am. ban écrit nga ne. man amaguma écrit individuel ya indi. wuti écrit <laughs> ah. wuti écrit. non jarul écrit quoi xam nga. si kanam rek rek day xaar mu ñëw terminé. man ak moom ñu def benn écrit bi caaro yi. voilà bëgg a jëm. incha allah. waaye poti rek rek poti rek rek. billahi maa ngi leen di woo sama combat bi premier laa demee. Ngoy Aliou Sylla fa la am combat. ak yaay laa dëkk. ak yaay naa la seet yow ñoo far. Ah. billaay ëpp oh, oh, yéen di ngeen maa neex quoi billaay seen seen liggéey moo war na yàlla ok waay am leen jàmm